wa le asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, eh, jërëjëf mbokki eh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak noonu di ñu seetaan Eh, ci réew biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi am mbégte di ànd ak yéen fii ci Darou Salaam Darou Salaam di kër maam Cheikh Anta Mbacké di dëkk bi nga xam ne moom la ko tedd ki Cheikhuna Ahmadul Khadim njëkk a sanc eh, ci atum 1884 fii di Darou Salaam fi la Cheikh Mahamadou Moustapha Al Karim gane àdduna ak eh, Cheikh Mahamadul Fadal Mbacké muy dëkk bi nga xam ne bi Serigne Touba liggéeyalee boromam subhanahu wa taala ba jóge ci géej gi ci dëkk bi la ñëwaat ci atum 1903 di dëkk bi nga xam ne moom la rafaatale maam Cheikh Anta Mbacké dëkk bii ci la maam Cheikh Ibrahima dina amee ngërëmul yàlla foofu nag la ñu toog tey jii amal julli korite gi nga xamante ne bii ñi ngi ko amal ci njiitul Serigne Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadoul Mamoun Mbacke waaye moo ànd ko nag ak ki nga xam ne mooy imam ji di Serigne Abdoul Khadir Mbacke xalifa Serigne Amdi Moustapha Maymouna Cheikh Mahamadoul Mamoun ki nga xam ne moo ko njëkk a wuutu moo di Serigne Mouhamadou Roqaya Mbacke ginnaaw bu mu fi jógee Serigne Amidou Mbacke moo ko wuutu jóge fi Serigne As Guédé Mbacke ko Serigne Jili topp ci Serigne Abo Mouhamed mi nag nekk fi di xalifa euh, Cheikh Mahamadoul Mamoun moomee Daaru Salaam taxawe ko euh, ñu ànd ak moom nag ci julli gi ci teewaayu imam xalifa sëriñ Amdi Moustapha Maymuna bi nu julee ba sëlmal nag kaddu yii la sëriñ Cheikh Abdou yëkkati ci ndigalul sëriñ Abo ñun ñëpp ñu maase déglu kaddu yooyu aouzu billahi samii alalim min alseytaani allain arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina muhammadin nabiyi al umiin al mabuusi rahmatan lil alamin وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokk yu tedd yi teew ci barab bu sell bii di dundal bis bu tedd bii di kilifa yi diine yi ak kilifa yi adduna yi ak mbooloom mbokki taalibe yi ak mbooloom mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen tey am yéene jaar ci saw tur ak ci saw sant di leen jottali suñu kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jottali ci ndigalul Cheikh Abou Mouhammad mi nga xam ne moo toog a jotaab Cheikh Mouhamadoul Mamoun te ko sëkk ñu di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te wéral ko te dëgëral ko bu baax a baax ba liggéey bii muy taxawal Cheikh Modou mu àgg ci foo xam dana kayo te ñu ànd ko moom ak bokki taalibe bi yépp sëriñ bi wax ne mi ngi jiital ci am nuyoom Cheikh Mouhamadil Mountakha al xalifatul am li tariqatil wa raahu wa ayadahu wa mi ngi koy siyaare siyaare ba gën tedd di ko sant ci turu boppam di ko santal waa Daaru Salaam gépp ngir ab taxawaayam ak yëg gi mu am ci ñun ak cofeelam gu ñëpp xam mu am ko ci Daaru Salaam am ko ci njabootu Daaru Salaam suñ maa ngi koy sant di ko gënam di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te wérlu ko te àggale ab liggéeyam fa mu ko bëgg a àggale ci barkeb sëriñ bi sëriñ bi ne mi ngi nuyu bokkam yu tedd yi nga xam ne it ñoo nekk ci jataay bi ànd ci julli gi di kilifa yi dëkk bi mu leen di seeral ak cant ak ngërëm di géeg ci seen taxawaay bu baax ndax gis na ànd gi ngeen ànd ak moom yéen a ngi ci wetam ci wet yépp seetaanu leen ko ci dara mu ngi nuyu mboolem bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la yàlla féetale Daaru Salaam nee na ñu ngi seet ne seen pastif rafet na lool seeni jëfit mën na sëkk mu ngi ñaan yàlla leen sëriñ baa fay te taxawu leen te faj seeni aajo mu wax ne bisu tey jii nag bisub mbégte la bisu sant la bisub balonte àq la bisub fàttalente la moo tax mu ngi digal képp koo xam ne war na laa jox ndigal nga farlu ci si diini bu baax a baax te sax ci ak njub ak juboo ak rafetal sa diggante ak sa moromi jàmm mi ngi wattandikuloo ñëpp lépp loo xam ne boo ko dee def walla nga di ko wax day mën a sulli ay fitna walla muy bijj aw ay ndax jàmmkat kenn waru koo jënde dara dara ndax képp ku ko ñàkk lépp loo nekkoon di ko def danga ko bàyyi teg ko ci suuf ba wuti jàmm ba am ko dog caa kon ku ko am na nga ko téye bu baax ndax kat aw ay moom moytu ko ba mu amagut moo gën a yomb fu fay fay ko bu xasee tàmbali ku ko xas taal yow ma ko taal mënatoo koo fay sa moroom mi mënu koo fay yàlla rek a ca des kon suñu baa ngi koy dénk ñépp ñeen ndax nit ku ne danga war a xàmmee li nga moom ak li nga bokk ak li nga xam ne sa yoon doonoo ca dara li nga moomoon sa bopp nga téyal ko sa bopp yor la ko sa bopp am jël sa fulla ba kenn di ca xuus di ca jëfandiku loo xam ne dëppwul ak sa coobare waaye li nga xam ne danga koo bokk danga ko war di nangoo waxtaan ak ña nga di ca sàmm àq ña nga xam ne seq nga ko ñoom ba nga xam ne loo ci jëfandikoo loo dugg ci loo xam sañ-sañ ba nga ca am ndax sañ-sañ ba nga ca am moom la ci sa moroom am ku ne war na caa bay sawaar ba kenn ku ne lay sab cër nga téye ko te bañ a bund xataal kenn ci ab cëram suñ bi neen loolu mi ngi koy dénkaane bu baax di ko dénk bokk yi di ko dénk bokki taalibe li nga xam ne nag duunoo ci dara moom danga caa war a jàpp san njàmbur ndax as su ne war naa bañal boppam di dugg ci loo xam ne ku la ci fekk ku ne ne la lii yow lu ci sa yoon ku ne du ko war di daw loolu jàllee sëriñ bi nee na mi ngi ñuy soññ ñu gën a jàpp sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy suñu yaakaar yi te yëkkal la te wóolu ko te doyloo ko te taxaw temm ci ay santaaneem te farlu ci liggéey ak jaamu yàlla ñaar yooyu yi nga xam ne moo ci la yoonu murid ràññ ko ci la Sëriñ Tuubaa tabax yoonam yi ñaari yoo may li nga xam ne moo teraanga yi àdduna ak tex ak àllaaxira képp ku ko boole te loolu lañu Sëriñ Tuubaa fàggul loolu la suñu borom mas a bëggal jaam ñi it ba tax mu leen koy sant waa ba tax fii ma ateeka llahu daaral axirata wala tansa nasibaka min addunia adduna ak àllaaxira ñaari kër la yoo xam ne ku ci ne dañ ko war a defar àllaaxira lañ jëm muy dëkkuwaay ba waaye ci àdduna lañ koy fàggoo yonent bi sallallahu alayhi wa ci li ñuy nettali waxoon na ne i'mal li dunyaaka ka annaka ta'ish abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu xada kon boole ñaari kër yi fexe ba yépp taxaw na mu war a taxawe moom lañ ma di santaane Sëriñ Tuubaa nag bi mu moom moo ko jëmmal ci waa këram ba tax na ak njaboote moom képp koo xam ne fekk nga ko fa muy liggéeyee pastif ba mu cay àndal ak dogg ga ak njàmbaar ga da ngay defe ni kiy yitteem tey ak ëllëgam lépp ci lii la yam waaye fekk na loolu lépp buñ liggéeyee bañ am ko lu mu rëy rëy àtt nañ ko joxe ci yoonu yàlla kon mel na loolu taqut taqut ci seenu xol hmm. ñett yi nga xam ne moo gën a njege doomu aadama muy nit ku ne sa bopp sa njaboot sa alal ñaari ku gàllankoor sa digg sa borom boo seetee ñett yu du ca génn njabootuk Sëriñ nag yàlla mosul neen ci loolu ndax koo ci gis boppam la njëkk a joxe di jur di joxe di liggéey di joxe kon nañ sant Sëriñ Tuubaa baax waaye nag Sëriñ Tuubaa fàggul nañu fàggul nañu alali àdduna fàggul nañu njëggaluk àllaaxira wax na ni yaxfir li kulli man ilayya maala wa an yadayhi laa tusansih maala kon nan sant sëriñ bi te jàpp ko bu baax a baax sëriñ bi nee na mi ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo amoon ay taxawaay yu rafet ci biir weeru tedd wii di weeru koor bi di ko taxawu di ko dundal ci biir jàkk yi naafile yi ñu ko doon taxawee ak ña doon ànd ak ñoom taxawaayu rafet na sëkk boroom xam-xam yi nekk ci dëkk bi doon fi amal ay jataay jataay yi xam-xam waxtaane nit ñi di leen xamal lu baax ak njàngale yi sëriñ bi sant na leen gërëm na leen sant na moo leen bokki taalibe yi nga xam ne it weer wépp ànd nañ koo ak ñun ci seeni taxawaay ak seeni defal yàlla ak liggéeyal sëriñ Touba ba weer wi lépp rafet na sëriñ mi nee na kon sant na ñépp ci loolu nga xam ne lépp di leen xamal ne nag bii liggéey mën na sëkk ñu dëgg mat suñ bisu bopp bi nga xam ne bisu Serigne Touba la mu jagleel ko Cheikh Sidi Mokhtar nga nañ xam ni ñëw na ba noppi ñu nañ ko teel a fannoo di ko soññ ñëpp ku nekk waajal ko fas ne foo ci tolloon daawa ki daw jëkk na nga jóge foofee te jàll ca kanam te xam ne mbirum Serigne Touba daawa di jëm kanam saa su ne mi ngi ñaan nañ ko fekkee te taw ko te am ci ngërëmul Serigne Touba Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di leen ñaanal di leen xamal daal xolam sedd na guy yàlla na yàlla seral seeni xol te faj seeni aajo te yéemanal seeni mbir bi jaahi Seex al Xadim alay akbar ridwaani al baaxi al Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kaddu yi kaddu yu mat la soññee na waaye itam dénkaane na it nag waaye nag euh, fàttalee na li nga xamante ne bii moo di euh, xew-xew yi am ci jamono ca lépp nag loo xam ne day jur jàmm Serigne Touba nee na jàmm ku ko bëgg da nga koy yéene ba noppi di ko jëf ba noppi nag di ko wax loolu mooy jur jàmm kon nag yal na yàlla mi nga xam ne moom jàmm yal nañu yàlla jafal jàmm ci senegal defal ñu jàmm ci njaboot gi defal ñu jàmm ci àdduna bépp ñu ñaanalaat nag Serigne Abo Mohamed yàlla gën ko fee yàggal gën a doole ak wéram waaye ñaanal nag suñu wasila Serigne Cheikh Anta Mbacké yàlla may fanu gudd wa ànd ko wér bi barikati Cheikhuna Ahmadul Khadim seen bokk taalibe Fallou Galassine ànd nag ak euh, sëriñ euh, Mamballa Gueye mu ñëw nag fas yéene leeral programme bi nga xam ne doon nañ ko dund ci koor gi ànd ko ak ñi nga xamante ne bi ñoo ko doon seq ñëpp ci ndigalu sëriñ Abo Mohamed kon sëñ Mamballa bisimilah. bisimilah rahmaani rahim kon mbokk yi ni ko sëñ Fallou Gaye si la waxee rek ñu ngi fi ci Darou Salaam dem jëm sëñ Mouhamadou Maam Gaawaan doon joxe julli gi nga xam ni mooy julli korité 2023. kanamu sëriñ Abo Mouhamad xalifa Cheikh Mahamadou Mamoun di sëdu sëriñ Touba ba daaligaat bi bu yàlla baaxal ku fonk Daaru Salaam ku ko taxaw taxawaay boo xam ni ko sëñ Galas waxee rek ñëpp seere nañ ci seere boo xam ni te mënu koo weesu dañaan yàlla gën koo dëgëral sàmm ko baax a baax dana àggale yéene moom jabar borom gaawaan gi yëpp nag daa wax na taalibe Sëriñ Touba yi yàlla booleel di taalibe borom gaawaan yi ak Maamun kon day mel ni sëñ maam Cheikh ni ko bàyyi Bras waxee rek eh, xutba bi dafa bari ay njàngat yu ci mën a jàngatee semi ñëw na ci ñu jaamu yàlla waaye ko daal léegaar ñu gën a fonk liggéey ak jaamu yàlla waaye jeexale ko nag ci Sëriñ Tuubaa mi nga xam moom lañ yàlla booleel muy indi njariñ loo xam du jeex àdduna ak alaaxira fàggul ñu teraange àdduna waaye fàggul ñu njëgalu àllaaxira loolu sëñ bi tënk ci kaddu sëñ Abo Mouhamad muy sëñ Cheikh Abdou Mbacke mu sëñ am di imaam muy kaddu yi am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla mayees na cee jariñu ren ba déwén te yooyu yëpp mu ngi bàyyi ko ci ci fi nekk sëñ Mouhamad Mamoun nekk Daaru Salaam sëñ Abo Mouhamad di doomi sëñ Mouhamad Mamoun waaye nekk doomi soxna Maymuna al Kubra mu sëñ Xadim muy jàmbaari joo xam ni ku ne xam na Daaru rek moo ko ñor. gis ni def xurum bi pénc Daaru Salaam yi ni ko bàyyi loo xel waggaree bàyyi loo xel doomu aadama yi gën koo fonk suñu Tuubaa fii la njëkkam fi la gisee leeroog Tuubaa fi la fi la taalifi xasida yi baree baree bari mu xam li maam ba doon fàgg fàggu xam li maam doon bàyyi xel muy dëgg dëgg dëgg dëgg islam akum njub mu ñëw taxaw Daaru Salaam fii sa njili wóotu fi sëñ asgare wóotu fi sëñ amidi wóotu fi wóotu fi sëñ mudu roqee taxaw taxawaay boo xam kenn ku ne xam na ni kii taxaw taxawaay bii de wax dëgg yàlla li mu yor fooyewu ko waaye xam nañ daa yor nonay sëñ Mouhamadou Ba amoon yor nonay sëñ gaawaan bàyyi ko sëñ Tuubaa mi xam mooy maamam kon dañ ñaan yàlla gën koo dëgëral sàmm ko baax baa ku ne xam na ni màggal Daaru Salaam gi wala boog jëmmi koor gi ni mu ko taxawoom si ëbboo di joxe ordre lañ lañ na saxaafee muy mu asu Daaru li lil baax lil baax si wanasee ilmi jox leen ay thèmes yu am solo jox leen ndigal ñu génne ay thèmes solo tuddee ko ala sin bu njëkk bi sëñ Morfa Touré sëriñ Mouhamadou Faara Mata mu sëriñ Afia waaye sëriñ Omar Mbacke mu sëriñ Mouhamadou Mamoun ñooy ñëpp gisaat seen bopp ci Daaru Salaam yooyu yëpp daa bokk ci xariixa waaye ko ci xel ak xalaat sëriñ Abo mi xam ni moo fi nekk sëriñ Mouhamadou Mamoun yàlla fi yàgg te lool waaye Daaru Salaam ko boo gisee julli gi nga xam nit ñi amaan nañ mbégte bëggaat nañ gasaalekaat lu baax gën a ñoo jaajuwaat ci moom gën a liggéeyal yàlla gi sëriñ Tuubaa ci moom xam ni ku ko liggéeyal moom sëriñ Abo mii léegi nga sëñ Mourou Mamoun léegi nga sëñ Gaawaan ñaan yàlla ñu ko dëgg sàmm ko baax ba àggale yéeneem dégg nga ni mu wootee sant sëñ Muntaxa baax ba waaye nag di bàyyi loo xel nag maa gi nga xam mooy màggal Daaru Salaam gi nga xam ni bu amul woon ngeen màggal daam am nga waat na ko ci discours bi te loolu lépp mu ngi bàyyi ko ci xelam bàyyi ko ci xalaatam imaam jotli ko yal na yàlla àggale yéene sëñ Abo gën koo wéral wéral ko ñi ko ñi ko dar moo xam mbokk yi la moo xam taalibe moo xam julli ñëpp ba lim yéene liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla def ko mu liggéey ko ni mu ko soobee te ànd ko moom wasalaamaaleykum wa barakaatu.